Thank you. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi nee mi ngi nuyu mboolem ak fu mu mën aju ci yoonu sëriñ Touba bi di nuyu bokk yi fi tase yépp te ndigalal sëñ Touba ak sëriñ Fallilou tasale nu fi màggal gi sëriñ tuuba ko santaane wax ci la mu wax lépp dégg ngeen ko ba tàyyi waaye dajale mbooloo mi nag sëriñ Fallou ko jëkk a digle loola lam ci jublu woon moo di nu daje Touba nun ñëpp ñu war a déglu ñu déglu leen ñi war a dégg ñi ñu war a dégg ñu dégg leen loolu waa defoon nag yàlla nangu na ko li sëriñ Fallou defit yàlla nangu na ko kon yàlla nanu yàlla taas ci seen barke ñoom ñaar ñépp kon nag guddi gii bu amee ndax guddik suba gi war a ñu war a jot li njaboot gi waaye guddi giim nee na moom moo ko moom nee na fekk mi ngi dund ak noonu bëgg naa di ko def bëgg naa ko fi jóge sa xol tooy sam tooy sa jëf teew te teey ndax sëriñ bi nu am sëriñ Touba daana ko wax tey mat tey mat suba sëñ Touba loolu la def ñu dikk ci àll bii daf ne sëñ Aafe Mbàkke la àndal loolu sëriñ Xaasim Mbàkke moo ko ko nettali sëriñ Touba dafa duy setal ak ndox jox sëñ Aafe Mbàkke ñu ànd jëm si Touba. ñu ànd jëm si Touba. fii fi barabab sëriñ bi. ak bépp fa nekkoon. ak bépp moo fa nekkoon. bépp googu. lañ dindi. def sëriñ bi bi ñibbisee tu ci bépp gi dugg ci àll bi moom sëriñ Touba di dox dox bu bari boo xam ne dem na ba tisbaar si rëcc ba sëriñ Afe jàpp ne dafa jaare noona dem Daaru Salaam mu dégg muy ñëw bi dikkee dane sëriñ Afe ku baax ku mës a doon wër waaye nun la ko yàlla jagleel daal toog eh, tëdd nit nit di tëdd toog tëdd tëdd ndijoor tëdd càmmoñ jaaxaan dëfeenu juróom-ñaar yooyu la nit am yooyu toog toogin yépp def na ko jàpp julli baar toog fi ba noppi ñu am salaam ba ca suba sa sëñ Tuubaa delsiwaat fi béb gi daal ne sëñ ci nañ ta maam Cheikh Ibrahima Fall nañ tàmbalee fii tàmbalee defar Tuubaa di ko àlli booba xaw naa metti lool waaye lu baaxi sëriñ am ne lu may leen ci jox lu bari fitna firnde waa bu ñuy ngénte na mbaa luñ mën di def ak dépasse ya ku génn àddina bañ dugal ko ci suuf si yàlla di ko fay di ko fay di ko fay ba ne ne ko négal ma seeral ko ñii ci biti bari na ci Touba lool liggéey baa ko waraloon booba mar wi fi nekkoon ak coono bi maam xaas wax na ma ci lu bari si ñaafee ko ko doon nettali kon loolu lu wéy lu rëy lool la bu wéree lool la bu wérutit kum neex nga weddi ko waaye man loolu la ma sëriñ Xaasim Mbàkke nettali kon nag bokkut li ma fekke man te samay at doonatut at yu ndaw fii laa doon jànge alxuraan géde di jàng ci sëriñ bu sa ilimaan yàgg naa fi lool léegi nag bi ma xamee lu bari lu ngeen xamut jàng lu bari lu ngeen jàngut dem fu bari fu ngeen xam lu bari lu ngeen xamut te ma mën a wax ak yéen wax ak yéen du wàññi dara ku ci yokk dara baax na ku ca wàññi dara baax na waaye bëgg naa nu takkaat sunu laxasaay te xam ne sëriñ Touba fowut fowluwut te bu fowut fowluwut nag waru noo dugal sunu bopp ci mpo ànd bu ànd akub yar bañ a ànd ak yu bari yii ma gis léegi ndax man kat siyaare naa Sëñ Muntaxa may ñu ñu wax ñaari baat ndax taxawunu te murit daawut doxe noonu bu duggee ca kër sëriñ ba day dal te noppi te wàcc te déglu ba koy wax mu xam ko li muy waxit it sëñ bi mën koo xam waaye ram kilifa loolu laa gis mu xew léegi su ko defee kilifa gi dootu mën a xam lu may wax waaye ku war wax ku nekkat soo gisee ku la déglu danga nga wax kon ak murit ba sëñ Fallou Mbacke jàngale na ko ñaq la ak ñuk ak ñuqi ku ci nekk yaa ngi ci lu wér wér lu dul loolu nag la nga nekk yow yaa ko xam waaye moom lii tegtale ak murit te ñu bàyyi yareediku gi ab murit day jub yaru lool mokk lool bari teggin rafet njort rafet jikko nangoo liggéey tey muñ tey déglu ndigal luñ ko wax mu xam ne lii lu baax la moo koy jëriñ teeg ëllëg mu dem ca solo lool waaye téppi téppi nag xamoo foo jëm loolu wóorul ndax morit ba morit jeex moog jiwooyam jiwu boo koy jëli ca seko ba da nga koy indi nga yóbbu ca sën ba tànn gerte gi buuse bi ak xar ji yu xóor yi nga dajale ko tuuri ca sën ba kemb bu ne cocc nag mooy murit saadix boo ko jixee mu baax bu saxee indi ba doom yu baree baree bari nu war a fas ci sun xol bi loolu lan war a fas ci sun xol bi di jàpp ko bu baax te doxe ko bu wóor waaye loo xam ne ëllëg boo ko ëmbee teew ci këram sëñ Touba muy sa ndabal taalibe du ca nangu dara loolu wóorul nan xool bu baax a baax segg sunu taalibe gi te tànnaat ko te nooyalaat ko te dëbbaat ko ba mu raw fariñ loolu dana am solo waaye nag boo bëggee jëriñu ci dugub te defoo ko ni nga ko war a def doo boo ko jariñoo ba noppi koo ko jox du ko mën a jëriñoo defar sunu taalibe gi defar sunu jikko ji defar sunu jom ji defar sunu jub gi defar sunu ngëm gi jàpp ci sunu diine ji jàpp ci sunu ndigal li te dëëral ko te wayal ko te wéyal ko ñiy wax lu kenn xamut ndigal ci yoonu murit ndigal ci yoonu murit am po ab poxukaay lañ ko def. defe ne nag nit dina la digal lu jëmut ci yàlla. ko xam luy jëm ci yàlla rek. ak lu lay baaxal ci yàlla rek. ak lu lay dimbale ci yàlla rek. la lay digal. duñ la digal leneen. ndigal li da lay yóbbu ba àjjana. ndigal nag am na. ndugalit am na. jëme wu ci caaxaan. jëme wu ci caaxaan. jëmewu leen ci mpo loolu lépp sëñ Tuubaa bëggu ko woon te gis ngeen ko ci yoon bu baax a baax waaye nag gerte gi bi mu génne ci seko ba tollantaan da cee nekk pëpp nekk ci xuur ne ci ay boose ne ci lu ne ne ci te loolu lépp nag duñ ko mën a ji mukk dañ koy tànn génne ko tàqale ko ak jiw wi jiw wi nag murit saadix boo xam ne bii xolom féex na xolom leer na mu jébbu li cib sëriñ day fexe ñu xàmme ko bu baax fii mu ne xam naa ñu baree bari ñu doon ab morit waaye jébbuluñ fenn de ñoom buñ ñëwee ci jumaa ja foofa ñuy lal jënd luñ lekk jënd luñ naan dugg fi ñuy dugg génn fi ñuy génn buñ xëyee taal seen wata ne tirr sëñ Tuubaa dafa bëgg taalib bu man di doon nga aju ci dara dara ja nga aju aju ci moom mu xam nu mu lay def waaye nag sëñ Fàllu ay aswaay fekk na ma fa ak suba naa sëriñ bi maay sa taalibe ba dëkk dëkk sàngam dama bëgg nga xam xàmme ma bu baax sa Sëriñ Fallu ne ko sàllaaw mu di ko wax di ko wax di ko wax ba ni ñi fi nekkoon ñépp jé jéppi ko mu tàggu sëñ bi mu ñaanal ko mu dem ba ca baraag ba ne taxaw fi ne sëñ bi xàmme ma de maa ngi nii sëñ bi ne ko kaay du ma xam xàmmi benn yoon yaa ngi dem ci sab roq toog fa jàpp sa njàmbur te liggéey bi may liggéeyal seen Touba ci jumaa ji sa dara di mu ci nga ne nongu foofa nim nen naaw danaa la xam du ma la xam du ma la xam de kon nag jëfa fi ne ndax taalibe ba ca gën di taalibe courant bi day fay mu àddu rek sëñ bi xam kooku kan la waa kër gi wala waa kër gi xam kooku kan la waaye sëriñ boo xam ne bii ndax bari na léegi lool day génn àddina docteur ba waaxu dikk ci man am na taalibe bu gaañu fee de nee na yaay sëriñam nu tudd mu wax ma ko fu mu dëkk mu wax ma ko ma xalaat xalaat xaw ma ci dara xaw ma ku mu doon waaye du tee nag man ma daal di jóg daal di dem toppatoo ko ni ku toppatoo ko wax dëgg ne ni kuñ xam indi ko ci fiñ ko war a def ma def ko ci waaye sànq sag taalibe ñàkkal ko fayda waaye dil ko doyadil ko te bëgg am li nga bëgg ay nax la tey nax wóoru sëñ Tuubaa nag naxunu tey naxunu suba góor góorloo te yaru yaru mënta ñàkk sëñ Tuubaa moo ne ku juddu ka jëkk ci yow mooy waajur bu jigéen day sanga ba nga set raxas la ba nga set yar la ku sa yaay mënta yar na sa baay yar ku sa baay mënta yar bóor yar la ku bóor mënta yar àddina yar la ku àddina mënta yar dee yar la ku dee mënta yar bàmmeel yar la ku bàmmeel mënta yar sawara mën laa yar sëñ Tuubaa nee na sawara kum yar da nga nuut kon yaru leen bala ngeen a àgg foofa nan dugal ci murit gi ak dal ba sëriñ bi mën a wax ak nun nu wax ak sëñ bi ten déglu ko bu baax ndax liñ ciy déggee njariñ rekk la njariñ moom moo am solo tey jii ëllëg it moo am solo rek ndax kat dañuy liggéey rek fañ nay faye àggagun nga ndax sëñ Xaasim Mbàkke ma ko wax de dane ma ñii dëkk àddina kuy dikk àddina doo paas dara waa kuy waaye kuy dem àllaaxiraat doo paas dara daal may misaal ne ma mi ngi mel ni mi ngi mel ni eh, eh, ndakaaru mooy àllaaxira ñu teg taagal taabal ci mbedd mi ku dikk ñu ne bëgg ngaa dem mbos liggéeyee nga waawaaw ñu ne bindul ñu ñi bindu mooy ñi dikk àddina ñu bindu nag nuñ baree bari danañ ñëw da waaye dañ la wax ne la mboskat nga jëm dangay ngay liggéeyi waaye di nga dellu si ndakaaru gii boo demee nag mbos di fa liggéey su la nexee loo fa liggéey bu ngoonee nga yóbbu ko ca poste ba dugal ko mu ñëw ndakaaru ba la neexee nga xaaj ko lekk xaaj ba ca ndakaaru dugal xaaj bi mu ñëw bu la neexee def ñetti xaaj lekk ñetti yi dugal benn bi bu la neexee nga lekk lépp doo dugal dara waaye dañ naa la fa mbos ga nga dem di fa liggéey yi boo waree ñibbisi saxaar gaa ngi taxaw mën a dem dem mënta demit dem su ko defee nag nga signé nga juddu doo paas booy ñëw kuy dee it buy dem du paas waaye saxaar ga nag facteur ba jóge poste di di dajeeg ñe ca dugal seen dara ca poste ba fa saxaar gay ñëw ma nga taxaw bu tax saxaar gi taxawee ku ne mu jox la kayit ba nga dencoot ca post ba nga demal retiré sa sa boo bari le yaa xam boo tuut le yaa xam boo xeebee la nga am yaa xam boo ko xeebut it yaa xam waaye koo xam ne dugaloo ca woon dara facteur ba du xam saw tur sa ndax ndax saw tur du fa ne du ne ca kayit yi sëñ Xaasim Mbàkke ma wax loolu daal ne ma lool nag mi ngi mel ni sëriñ boo xam ne nii dañ na kat juróom-benni weer wallaahi alaasim làmmel la ma ko waxee juróom-benni weer tabaski gi dana ñëw ku am yére yoo xam ne yii sàcc mënu ca dara max du ca man dara sawara du ca man dara diw am na gaal kon nag sama yére yi may waaje ji booba naa ko ko dénk lone ne danañ ko ko jox ba riis bi gën a seer bi gën seer bi ñuy wax euh, président président président euh, cour suprême suprême mooy bassin bi gën a ri seer ay nit di ko ñaaw lu dénk la ñii ñaaw lu ba wóor ñii ñaaw lu bassin bu ne ak xeetu ndima bu ne ak xeetu jaxase wu ne ay am ñoo wut ay sekkit ay sagar jaxase ko fóot ko ba mu set ñaw ko dikk dénk la bis ki ñëw na nag ku ne dikk taxaw lam la dénkoon ca gaal ga nga génne ko jox ko ko mu ne ma bu dee dañuy jox sëriñ ngir yàlla muy joxewaat ngir yàlla am na remise bu ko yàllay delloo kelee ame yére yu mu mën a waaje ba mën a dem fu ne bu dul loolu nag gaal ñépp di waaj nga dëppoo gaal ak sa taati kese ndax do loolu doxut loolu de doxut mbàkke mooy am nag eh, sëriñ bi buñ ko jox ngir yàlla muy jàllale ngir yàlla bis booba danañ ko defal loolu remise boobu dina ko am man cee tedd bu baax waaye nag lii xew léegi bokkut ak lin xamoon waaye nan fexe ba jeex ci lan xamoon bu njëkk lu baax la kat ma nga ca ña dem nan ko topp bu baax sëriñ xaasi mbàkke daanaa gis taalibi bu dikk ne ko damaa bëgg a tuxu danaa la. danaa la. da nga maa bëgg a booleeg yàlla. waaye doo ko man waaye boo demee nag. waaye boo demee nag. royal ma ñëw biir suusa. royal ma ñëw biir suusa. te bàyyil ma fa ñëw ci te bàyyil ma ñëw ci bitti. fi mu ne Touba. lépp lu sëriñ bi di tere. muñ taxaa ngi soow rek. sëñ sëñ Saaliw ngi doon wax. sëñ Abdou Lahat ak ñëpp. ñu ngi tere ñu waaye ñu nekkoon ca àll ba ñu bone woon ca àll ba te bon ñoo fi riir ñëw def seen bon googee ñu yoroon ca àll ba ñu samp ko fi waaye sëñ Tuubaa bari xar baax danañ leen sempe sempe sempe ba mu set ndax li sëñ bi bëgg defaluñ ko ko Tuubaa solo ci Mourtalaam Sëñ Fàllu mii. sëñ mii. maamam maamam. sëñ Touba da ko ku ma dëkkal Touba. ku ma ajuma ko ci sab liggéey. sag dem àjjana. ajuma ko ci sag jaamu yàlla. waaye baatu ku ma dëkkal. ma dëkkal baat bu réer la. sëñ Touba lim bëgg nga di ko ko defal. li bañ nga di ko ko bañal. fekk naa fii sëñ Fallou muy dugg ci jumaa ji xubba bu mag bi magi bi yépp toog foofu def daayiru bu rëy di waxtaan mu dikk rek tàccu leen jóg leen lu ngeen def fii ñu daw tasaaroo mu dugg ci barabab sëriñ bu mag bi ba génn daane ana toogoon fii ñépp daw nañ de bàkke mu ne soriwuñ nañ leen woo wër ci bunt yi ñu woote woote ñëpp ñëw mu ne leen li ma leen di bañal daa yomb ci nit ku ñuul miin dara yàpp ko te sëñ Tuubaa mii def fii ab waxtaanukaay te waxtaanu murit li ci ëpp fen dong la ak naan kafe ku la dàq naan kafe naan dàq laa fen gën la di murit li xew fi sëñ Touba nag bu bu ngeen ko fi defee ak yàq yàpp sëñ Touba la te sëñ Touba mii kat ku ko yàpp noppi cee jariñu lool la wax ak ñoom maa ko fekke ndax du ma gone loolu nag ginnaaw mooy dox léegi nag waa dëkk bi nañ laxawaa laxasaay waat soppi dëkk bi ni sëñ bi bëgg ñu soppee ko dëkk bi nañ ko ni soppee kenn ku nekk fi pegg te jubut ka nekk ci sa pegg te jubut nga ko jubal waxut lu jub defut lu jub waxi ko soo ko waxee ci la ñuy sampate ñu bon ñëpp ñu dem waaye ñu nekk ci ndigalal sëriñ Touba moom kenn waru leen a mën a yàq kenn waru leen a yàqal fekke naa waxu sëñ Fallou ci Touba gii dane li sëñ bi def kenn mënu koo yàq nit nit mën na mën na cee wax ba yàqoo ci waaye kenn mënu cee yàq dara loolu nag moo am nan ko téye bu baax a baax te wayal ko te wéyal ko di def lu baax di yéene lu baax yaru ami teggin jub am dégg ndigal way te bañ di murit du waye di murit du doye di baatu murit Sëriñ Tuubaa ko bind am lum ci tere melam ci tere nag mooy miim gi mer ab murit du mer raagi ab murit du rëy yaa gi ab murid du yarediku daal gi ab murid du doyadi daal bindaat ba tey murid ndigal liñ digal murid muñ rafet njort yaru dëddu àddina loolu la sëñ Tuubaa bëgg digal nañu ci lii ci bii baat tere ci bii baat kon nag nu fedd liwaat sunub laxasaay sun jataay bii na gën ñaan ko fekke kook jàmm amin kon li ñuy wax ak li ñuy def kon di nu ko seeral bu baax a baax su amee lépp dina baax sëñ Touba xolam dana sedd ci nun njabootam gii xolam dina sedd ci seen xol dana sedd ci nun waaye nekk fii nag ju jubadi ga woon feneen ak bon ga woon feneen nga buub ko andi dara wóoru ci bis ci Touba gii wallaahi alxasim dama fi denc ku nelaw ba waaye dëkk bi yuuxoo dama ne bëreet jóg taxaw ne laa ilaha illallah ndax dafa woon naa ne loolu du man a am ñu doon yuuxoo football dong la wala làmb dong la wala càkkaay dong la wala noos dong la loolu na xewut fii ku bëgg a càkkaay ku bëgg a noos ku bëgg a fon ku bëgg fen ku bëgg a na dem defe ko ca àll ba Touba yegg rek. boobu Touba yi la fa yegg. fa Touba yegg nag. fa àddina yem. fa la fa la Touba yem. kon fen góorgóorlu. seggaat suñu bopp. seggaat suñu njaboot gi. waxaat ak ñoom. te defaat ak ñoom. kenn ku ne ci kat. mën ngaa xëy. mbaa nga gont. mbaa nga bàyyi fi ku baax. bàyyi fi lu baax. bàyyi fi ñu baax. billaahi jar na lu ne waaye gont mbaa nga xëy bàyyi fa ku bon koo xam ne waxut lu baax defut lu baax bëggut lu baax wutut lu baax lu bon dong la soxla loolu de wóorut jamono ji nag lëj na lool jaxasoo na lool àgg nañ fu doy waar su fekkee ne dal amut ak xel ak xol ak yërmande ak jéggile ak bale ak dimbale lépp dina yàq loolu seytaane waru ko fee def ndax say tubaakat defaral nanu ba noppi te ne contrôle ko nu contrôle ak bopp bu rëy ba lu lis lu baax leenu sëñ tubaa defal ñu yàq ko wërta mën a am ñu ngi dégg lu ne nit ñaa ngi wax lu ne nit ñaa ngi dem fu ne nit ñaa ngi ci lu ne waaye loolu lépp tënkuwut li tënku mooy nangoo liggéey ak jub ak yaru ak tënku ci ndigal gëm yàlla bu baax gëm suñ réew mi bu wóor sun réew mi ñeent fukki njëriñ yoo xam ne ak ñeent am na ci sun réew mii yoo xam ne tubaab yaa ngi koy wër fu ne. tubaab yaa ngi koy wër fu ne. waaye nag. waaye li tubaab yi bëgg moom. rey nu ban jeex. rey nu ban mbaa ñu wàññi nu bañ niiw. buñ mën buñ fi mënee dëkk ñu ñëw dëkk fi. te loolu yàlla du ko nangu. ba yàlla indi fii. tàgguwu leen. ba leen yàlla yóbbu fañ nekk ñoom. tàgguwuñ nu. fañ leen sédd lañ leen sedd waaye fii mu ne. ku ñuul. ku ñuul torox na lool tonk na lool jaaxle na lool ci àddina si réew moo jëm ñu ne du fii te la ne sa kër ñépp soxla ko loolu yéeme na nan xoolaat nag li ñuy def toogaat fii suñ ñaawaay bu réy bi ak suñ ñiwlaay bi ñu fas yéene toog ba li fi nekk ci luñ war a jëriñoo ñu jëriñoo ko waaye ba tey am naa xam-xam boo xam ne dama koo jàng suuf sii dafa am bakkan ni nun ni ko yàlla dundale ci biiram di ci jamaa or zircon phosphate seng përëm nikkel xërëm përëm nickel ak or ak or lépp a ngi fi am lépp a ngi fi am mën na ñeent fukki yëf ak ñeent loolu nag laal ko wóorul loolu nag laal ko wóorul ndax ba ko tubaab yi tàmbalee laal ak léegi ci Afrique ci Afrique léegi gis nañ ndox yu bëree bëri yu léegi ñu gis ndox yu bëri yu taw yu du ñu nu jaaxal. ak daa yu tàkk yu kenn mënta fay fenn. ak tàkk yu kenn mënta fay fenn. suuf su yëngu su jaaxal ñëpp. ak suuf su yëngu su jaaxal ñëpp. bari na fi léegi. bari na fi léegi. ndax daa ginnaaw daa am ak di dund nag. tawat jooju mu tawat. tawat mooy indi li ñuy wax sof climatique. climatique. ndax mën a taxyiirul manaax la ko arab yi wooree jaww ji moo soppartiku ne tàngaay bii am léegi amutoon buñ bàyyi woon or boobu ci biir ak jamaa boobu ak pétrole boobu ak gaz boobu nekk ci bare bare ak yëpp. ak li fi nekk ci or li bare bare or beeg jamaa yëpp. ñeent fukki yëf ak ñeent. ñeent fukki la ak ñeent. Sénégal gii am na ci suñ suuf si. gii am na ci suñ suuf si. nga xam ne buñ koy génne dañ koy génne di ko jariñoo ndegam baax na ci ñun. ndegam baax te sof climatique bi bu yokkoo. day gën a doy waar. gën a doy waar. ndax doomu aadama. yàllaa ko bind. ko bind. te da ko bind ci suuf sii la ko bindee. te da ci suuf yàlla bind. ci lañu ci lañu ne. ci di ci dund. def lu di ci def lu ne. di ci jële lu ñuy naan di ci jële lu ñuy lekk buñ génnee àddina ñu dugal ni ci biir suuf si maam xaas mbàkke nag da daa wax ne képp ku ragal ci bàmmeel ragal nga ci sa néeg ndey ku ragal ci sa néeg ndey nag la nga ca ragal yaa ko ca dugal loolu la daan wax de nee na suuf si mooy sun néeg ndey seen sa néeg ndey boo ca ragalee la nga fa ragal yaa ko fa dugal waaye boo ko fa dugalut doo fa ragal kon soose buñ ko laalee ba ko tubaab yi tàmbalee laal léegi mat na juróom fukki at mbaam romb ko di ko wute alal mbaam koom mbaa leneen waaye tàngaay wii am léegi almadaarilu ardi yi suuf si mu jaar da ko wàcc léegi moo tax tàng tàngaay wi am teget bi mu ko wàccee daa wuti jant ba jant ba moom lépp sawara la juróom benn junniy degré jan jant bi moo fa nekk tàngaay wii mi ngi rey ñu baree bari lim rey ci tubaab yi nag reyu ko ci nit ñu ñuul yi ndax nit ku ñuul ndax dafa naqaree rey waaye nag waaye tubaab yaa ngi def lu luñ man ñu ngi def lu ñu man ngir tàncunu fitnaal nu weddi loonu yàlla gëm seen bopp dugg ci lu ne ba loolu xaw ma xam ngeen xaw ma xamu leen waaye man de xam naa ndax ba ma tàmbalee wër ci àddina seeg léegi seet naa ko ci ñeent fukki at ak juróom-ñett ci ren. ci ren kon xam naa lu xew. tubaab yépp fii lañ bëgg. waaye dañoo bëggoon ñu dee ba wàññi ko nag. moo tax ñu ngi jox garab yoo xam ne di ko toqal gone yi. dañuy dem ba ci kanam. indi fi jumbook mii ak i mbokkam. jumbook ki mbokkam nag rajaxe ne fii moom. ndax jigéen ñépp koy togg. baaxut guddi baaxut bëccëg. Jimbo poset la bu dee jigéen la day yàq bu tiitu njurukaayam ba noppi door a yàqi bëtam yàqi tànkam jigéen joo mu am lu muy tawat foofu la koy tawate góor ñi nag tëdd nelaw rek lañ man boo leen tuddee rek ay di buri sarax te kon kon musiba am na bu njaboot gi yokkootul ndax xool nañu Afrique fii mu ne téeméeri nit yu ne juróom-ñaar fukk ya ay xale lañ wala juróom-ñett fukk ya loolu nag bëgg nañ mu jeex tubaab yi nag moom rey nu ba jeex tàkk bit geet ma nga Canada alal jëpp la la réussir la mën a avertir nit ñi wàññiku deux milliards la bëgg mu wàll ñu dee ci àddina te fii lañ ko bëggee kon wattu leen lu bare bare bari bay mel ni cokkeer ci forox moo tax nu xam fu ñuy jaar waaye gëm tubaab yii yaakaar leen wóolu leen bëgg leen di leen roy defe ne dañ ciy joge dañ ciy jage duñ ci jage mukk dañ ciy jagadee rek sëñ Touba wax na maam Awa Bousso ne ko nekk su ngeen demee ba gisatu leen ma gisatu leen kenn kuy dox sama doxiin def leen bañ tubaab ak jàng xasaayit muy seen sëriñ bu ëllëgee fu ma nekk da ngeen ma fa fekk dem na ba àgg ko bañ tubaab day nag jaamu yàlla te tuubaa gii ñëpp ngi jàngi tubaab ji fi nekk ñëpp ngi jàngi tubaab yaakaar lool lool yaakaar ko lool defe ne seen àddina ci lay baaxe ci la seen lislaam di yàqoo seen taalibi yàqoo ci seen mbir tasaaroo ci te lu dul ñi yàlla dimbale ñi yàlla dimbale moom da leen di teel a wan yoon wa ñu jaar fa te duñ ko wàcc waaye ñi ci des dana dana bàyyi ñu bari ñum réeral ak ñum ruural kon nag nan xalaat bu baax li sëñ Tuubaa bëgg nu bëggale ko ko ndegam ay taalibeem lañu nu xool lu baax a baax lim bañ ñu bañ la ko ndegam ñu bañ la ko ko ndegam ay taalibe leen loolu day man ci loolu laa ne ci laay xëy ci laay gont ci laay guddi ci laay bëccëg tey su ma sañoon ni ko yàlla defee ci sama xol bi ñu bëgg ma bëgg sëriñ bi topp sëriñ bi topp sëriñ bi di déglu sëriñ bi di dox doxinu sëriñ bi di wax li sëriñ bi bëgg kon dara du nu mën a yàqal dara waaye suñu àddina jiikat bu ñu yeexee. bu ñu yeexee. tubaab yi danañu defal loo xam ne tubaab yi danañu defal loo xam ne lii. du nu neex du neex. ndax kat ndax fii mu ne tubaab yi. fii mu tubaab yi. dajale nañ waa Afrique yi. dajale nañ waa Afrique yi. ñi ñi ñu ëpp doole. ñi ñu ëpp doole. ba not leen. ba not leen. di leen di leen xeexloo Pulsar. di leen te Niger ak noonu ay bokk lañu. Mauritanie gii. ak Sénégal. ak Mali. ak Burkina Faso. ak Guinée. benn famille lañu. benn famille lañu. ku amul fii soxna am nga fee doom nga baa nga am fee baay mbaa nga am fee maam baa nga am fee bàjjen kon lakkale ñuy xeex suñu mbokk kon suñu bopp baaxatu bu baaxee duñ ko def ndax ñoom lan am gis ngeen liñ defoon liñ defoon Mali di ko ambargo ambargo musiba la ci nun ambargo musiba la ci nun ndawal ndawal weesu wutoon juróomi téeméer ak juróom-benn téeméer embargo bi mu amee la mali téye seen yëf la mali téye seen yëf yëg nañ ko bu baax a baax nañ ko bu baax a baax kilo ndawal léegi junni lañ koy jaay ndax kilo ndawal léegi junni lañ koy jaaye bu dee bu amul yàq bu dee bu amul junne ñaar téeméer kon loolu baax na ci nu ndax yee kon loolu baax na ci nu ndax yee port bii port bii li fi daan jóge ci ay oto li fi daan jóge ci ay oto di dem mali di dem mali xaalis bu xonq cooy lañ dugal mali xaalis bu doon dugal ci réew mi. ci réew mi ci réew mi. ba loolu bañ ko dindee. ba loolu bañ ko dindee. ba ambar googu. la Russie. la Russie. taxawal benn autoroute. taxawal benn autoroute. bu jógee bu jógee Bamako. bu jógee Bamako. ba dem Conakry. ba dem Conakry. 400 kilomètres la. 400 kilomètres la. bu ne booy. bu ne booy. port baa nga fa. port baa bato yaa nga fay jaar. bato yaa nga fay jaar. bu nu tubaab yi xat bu nu tubaab bu nu bu xeex. tubaab bu bëgg a xeex nag ñëwal. tubaab bu bëgg xeex nag ñëwal. booba song bu songee ku songu ni seer. ku songu ni seer. da nga gis ay xal de. da nga gis xal de. nañ nu bàyyi. nañ ne dañuy li am ci ci wàll. ñuy am ci ñun ci wàll. jeex na jeex na. kenn mënatu koo yokk kenn mënatu koo yokk. yeewu yeewu nan. yeewu nanu. te xam nan te xam nan. di ko nag léegi ku yeewu xam nag. ku yeewu xam nag. da nga lijjanti sa bopp. danga lijjanti sa bopp. waaw waaye tubaab dem. waay seen kër toog fa waay waay tubaab yi nañ dem seen kër toog fa nu toog suñu kër nu nit nu toog suñu kër benn ku ñuul benn nit ku ñuul Moustapha ñu ngi mii xam ne ci dara damaa damaa jógee jógee Charleroi damaa jógee Charleroi jël ab yoo moom jël avion ak moom wàcc Marseille wàcc Marseille benn police seen ma karma benn police seen ma karma daal may song ne ma daal may song karma bi jeex na ne ma sa visa bi jeex na demal yokk ko baa nga ñibbi demal ko baa nga ñibbi dama ñibbi waaye yokku ma ko de ma ne ko damay ñibbi waaye yokkuma ko ko de. waaye wis doyuma ko dara. loolu nag nu man a amee. loolu nag nu mën a amee. sa kër lépp bëgg naa ko. sa kër lépp bëgg naa ko. waaye sama kër sama kër bu fi sa tànk jam. waaye sama kër bu fi sa tànk jam. bëgguma gis bëgguma xam. bëgguma laa gis bëgguma laa xam. daal bu ma bëggee xeexal maag sa mag. bu ma bëggee nga xeexal maag sa mag. mbaa nga xeexal maag sa baay. mbaa nga xeexal maag sa baay. ma xiirtal la ci sa baay. nga dikk xeex ak moom. loolu ak nit laa. loolu jeex na Sénégal. jeex na Afrique yi tam. jeex na jeex na fi. te bu soobee yàlla. te bu soobee yàlla. tubaab yi danañ bayali seen baay. nu bayali suñu baay noonu. waaye lii ak ak dëgg gi Abdou Baaxe Mbàkke leen ko wax. dana dem ba nit làkki tubaab. nga naa kii lu muy wax. ndax nga ñàkk xami tubaab. loolu lee mu am Sénégal. buñ na fontoo. tubaab yi yoruñu nu. dimbalewuñu. baaxuñ ci nun guddi. bëccëg baaxun ci dun bëccëg tey nag leen am lépp nag soxla nan ko te bëgg nañ koo jëriñoo ñoom nu jëriñoo ko nu toog nag bu soo buñ xoolee xam ne suuf si dañoo ba war a bàyyi li ci nekk ñoom luñ ci jëlee danañ gaaw delloo ko ci biir ndax orbite bii kat baaxut ndax orbite bii kat baaxut tàngaay yu muy indi tàngaay yu muy indi ak taw bi ak ngelaw li ak ngelaw li ak daa yi ak daa yi yéeme na sax. yéeme na sax. da ngay dem ci àddina ba nga ba ne. da dem ci àddina ba nga defee ne. foofa toofaan dafa am. foofa toofaan dafa am. toofaan mooy taw boo xam ne bu ko tawee. toofaan mooy taw boo xam ne bu ko tawee. ci la àddina di tukkee. ci ci la àddina di tukkee. kon nan góorgóorluwaat bu baax. xam li ñuy def bu baax. xam li ñuy def bu baax. xam li ñuy bëgg bu baax. xam suñ sëriñ bi bu baax. xam suñ sëriñ bi bu baax. te topp ndigalam bu baax. ndigalam bu baax te way ci ndigalam bu baax lu nekk nag tey def dañ defar tey sëñ Fall sëñ Tuubaa bind na li mu war a bind lépp sëñ Tuubaa bind na li wax na li mu war a wax lépp a wax lépp def na li mu a def lépp a def lépp nun ñii noo ci des kon suñu góorgóorloo suñu góorgóorloo ci liggéey li ñu war a liggéey sëñ bi ci liggéey li ñu a liggéey ci sëriñ bi liggéey ko ci suñu njaboot liggéey ko ci suñu bopp liggéey ko ci suñuy dëkkandoo. lépp lu baax. lépp lu ne dana baax. lu baax lu baax. yàlla danañ ko defal. yàlla danañ ko defal. tey ak ëllëg tey ak ëllëg. tey danañ jëriñu danañ jëriñu tey ak ëllëg maa ngi leen sant bu baax te di maa ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm jataay bi lay boo xam ne bii bi lay boo xam ne bii aal bi may dikkal aal bi may dikkal mënumaa dikk fii di ko wax dikk fii di ko wax waaye bu soobee yàlla waaye bu soobee yàlla ñaan yàlla ni taw ko ni ko sëñ Tuubaa tawee ci sama xol bi ñaan yàlla ni ko sëñ Tuubaa tawee ci sama xol bi mu ko seen xol yi mu tawee ko ci seen xol yi suñ xol yi amiin ba nga xam ne danañ xam fi ni sëñ Tuubaa jëme fan la ak fan jëm fan la lu weesu foofa ak lu weesu foofa it. dara du ca jag. dara du ca jag. dara du ca baax. dara du ca baax. Bill Gates. Bill Gates. bëgg alal ñëpp ko ci ñu wàññi ko dafa bëgg alal ñëpp ñu ñu wàññi ci nit ñi ñaari milliards la bëgg mu wàññi ci mm. la bëgg mu wàññi ko ci nit ñu ñuul ñi ki bëgg ci ñun di ñuul ñuul ñu amul dara di nit ñu ñuul ñoom la war war noo rey la ne war nañ noo rey waaye waaye balaa ñuy dikk yàlla jaar seen nga daaw balaa ñu bala dikk yàlla jaar fa seen ginnaaw def def leen fa wone weng ndax yàlla mën na te xam na nan góorgóorlu topp ci ndigalu sëriñ bi rek te liggéey góorgóorlu te jub te baax rek li sëñ Tuubaa bañ ci dëkk bi ñu bañ le ko ko lim bëgg ñu bëggale ko ko loo xam ne gis nañ ko te sëñ bi bëgg ko ci dëkk bi nga ne coow ca waxukaay ba wax ko fa ñu dikk gis lépp nan góorgóorlu bu baax Suisse. dëkkub Suisse. ñëpp ay policier lañ. dëkk ba yëpp. su wata gaaree. ñu xool numéro bi. ñu xool numéro bi. du numéro réew mi. du numéro réew mi. ñu daal di génn. xool ñi ciy wàcc. xool ñi ciy wàcc. duñ nit réew mi. ñu daan téléphoné police. fi nga taxaw. police di taxaw. fekk la fa taxaw daal di jàpp. daal di contrôlé. bu fekkee war a jàpp mu jàpp la. bu fekkee ne war laa mën a jàpp mu jàpp la. bu la wërta mën jàpp mu bala noonu nag Touba gii noonu nag Touba gii ni lañ ko war a def lu fi waay gis daal te teguwut ci yoon te sëñ bi bëgg ko ci Touba sëñ bi tere na li muy tere lépp te li muy tere lépp dara baaxu ci li muy digle ne li muy digle lépp te lépp di lu baax nan ci topp te góorgóorlu ci moo baax ci nun waaye li fi bon day ñi bon ñee ko fi indi danañ ne coow ak seen lu bon ah dem fañ jóge woon dem fa suñ Tuubaa dana sàkk pexe ci ñoom maa ñaan baax rek. ñoo ngi ñaan bu baax rek. yàlla dimbali nu. barkeel nawet bi bu baax barkeel nawet bi bu baax. lu waay di liggéey. lu waay di liggéey. te muy lu dagan. te muy lu dagan. te baax. te muy lu baax. barke bu baax a baax. dina bu baax a baax. ba képp ku bëgg a joxe addiya. ba képp ku bëgg a joxe addiya. baa nga dimbale say bokk. baa nga dimbale say bokk. yàlla dimbale la. yàlla dimbale la. nga man ko. nga man ko. waaye nag. waaye nag. loolu mooy li am solo. mooy li am solo. ndax. ndax. kii nag ku mu mën di doon. ku mu di doon. lu yàq ci saw doxin. lu yàq ci saw doxin. yaa ko yàq. yaa ko yàq. waaye noonu taalibe sëñ Tuubaa lan. buñ jiitelee sëñ Tuubaa. ci suñ kanam. teg ci addiya. teg ci addiya. lépp day dikk. lépp day dikk. waaye bu ñu jiitalee suñu soxlas bopp nag. waaye bu ñu jiitalee suñu soxlas bopp nag. suñ caay ju bënn. suñ caay ju bënn. bu foqee. bala maa jox sëñ dara jox sëñ bi dara daax caay ji. foo daax rek feneen bu naat. day bu naat. ak ak ak ak ak eh, ak ndénki gi ëkk nga yor. ndénki gi ëkk. <laughs> amiin waaw ndénk gëkk de gars yi xamuñu ko moom sëñ Touba dane képp ku jébbalu képp ku jébbalu yorel naa la naa la àjjana àjjana ku la ko yoral àjjana ku la ko yoreel. loo ko mën defal mënutoo ko fay. loo ko mën a loo ko mën a defal mënutoo koo fay. loolu wax na ko. loolu wax na ko. bind na ko bind na ko. te te man xam naa ci lu bari bari lu mu mënta wax. te man xam naa ci lu bari lu mu mënta wax fii. kon nag jébbalu. kon nag jébbalu. boo ko defee boo ko defee. bul ko caaxaane bul ko caaxaane. bul ko doye dal bul ko doye dal. bul ko woyofal bul ko woyofal. bul ko ñàkkal fayda bul ko ñàkkal fayda. wéer ci ndigal rek. wéer ci ndigal rek. luñ la baax na def ko te baax na. luñ la baax def ko baax na nga def ko nga def ko. luñ ne bu ko def baaxut. luñ ne bu ko def baaxut. nga bàyyi ko nga bàyyi ko bañ bañ sëñ bi te bañ a réer sëñ bi buñ ñu wu ak sëñ tubaa bu ñu réerewut ak sëñ tubaa duñu amam róor duñu amam reer danañ am te danañ amam reer amin ya rabbal alamin amin amin amin amin amin amin آمين ويهديك صراط المستقيم آمين آمين آمين آمين آمين